am na mhm. audit bu fi wone woon ay détournement yu scandaleux ñii di lebalante ci seen biir ñii di def ay chèque di jox seen bopp lu xam ni sénégalais yi comprendre ñu naka la demee. waaw mooy li la wax rek xam nga qu'est-ce qui s'était nga poste wax nee naa la ñun amuñ banque. Hmm. et amuñu possibilité lebalante suñu biir. ok euh, c'est des pratiques qu'il faut dénoncer c'est des pratiques nag qui étaient là depuis longtemps li ma jàpp mooy wax jooju ba mu génnee mais la mu yàqal kenn mënu ko natt. kenn wóolootu leen woon. mooy li ma la wax et pourtant. man jamono boobu xamoon naa ñu amoon xaalis poste dañ ko jëli. dañ ko jëli et pourtant euh, du ma ne dama koy encouragé hein parce que c' de des des pratiques euh, des erreurs de gestion waaye à l' interne yow yaa leble waroo waroo woon a leble kan nga lebal ay entreprise yu liggéey post ak ay traver yu nekk bi poste waaye mais sëñ bi nañ ko waxtaanee ci biir néeg nous avons la la direction de l'attraction postale mu ñëw xool ñan nga lebal ci biir kër gi ku ne ñu ool la yow yaa leb diw te ko ne nangam kañ ngay fay nanga mën a fay nga fay kooku nag ñu fexe ba waxuma la ak moom ak moromam mais jël ay le les les devant ba nga xam ne nit du mun a ci def pratique yooyu mais c'était possible. xaalisu postu daal boo bëggee dégg dëgg. Ah. dafa mel ni mi ngi ci seen biir yéen. waaw boo je je dirais que y a de de collègues des entrepreneurs. donc yoo xam ne leboon nañ. bon euh, donc yaay doy médiation pénale. est-ce que yéen a daaneel seen bopp à la fin. non non je pense pas parce que quand même un montant de 2 milliards kër. donc donc entreprise comme la poste avec une masse salariale de de de de plus d'un milliard donc un milliard daanul kër mais dama ne wax ju bëri ci kër baaxu waaw donte nag ña doon aussi seen dëgg nekkoon mais dama ne man waxtaanoo ko ci biir néeg dem naa ci benn télé de la place bi jamono jamono jooju. Mhm. bi waxee pare benn kilifa wu ma ñu ma yow la kan man mais je préfère taire man ko je préfère ne pas parler parce que ma wax ko ma xamul mu ne ma su ma la su ma la li ma comprendre baal ma rek mag sama soxna ñoo toog nii dañ ko demee ambassadeur bi mu jógee Sénégal nee na mais li mu amaloon trésor public dafa jéggi dayoo il faut que ñu nekk IRH ayo yi mais xam nga amuñ droit dañ la lebal ne ma ba ma nekk ambassadeur ci laa ko fay ci ñetti at ci biir néeg lañ koy réglé moo tax li nga wax léegi dafa daw sama yaram dëgg la ka def waru koon def ka ko bénéficier waru ne bénéficier mais comme ci biir kër gi la fexe ba pratique bi du amati ñu dakkal ko waaye kañ lebal ci biir kër gi ñu fexe mu si lu ko génnee du audit. non pas d'audit donc euh, xam nga pas audit donc c'est un DG qui à un certain moment a jugé que. il y avait une plainte. non non non non non non il y a pas de plainte. Hmm. donc c'est un boo xam ne bon il sentait que il y avait une cabale contre lui te mu ko doon gérer à sa manière donc am bañ ko fa nommer mu ko doon gérer à sa manière qui a qui s'est senti un un peu attaqué un peu donc mais xam nga mu humilié donc mu jeté ko sur la place publique donc peut que loolu moo mais comme je dis ñi ko doon kaas aussi am en sorte que parce que jàpp sàcc baax na mais fexe ba kenn du sàcc def gën. léegi ña leboon fay nañ. non ñu ngi fay. les gens ñu leen dagg seen salaire ñu ñu ngi fay les entreprises ñi nga xam ne ñoo liggéey ak poste da ñëw di liggéey ak poste donc am am bon engagement de la nga dem ñu lebal war ñu doon lebal. soo liggéey pare fay ces gens également ont soldé. sànq nee la vache laitière aussi dafa mel ni état daf ko defoon poste à un moment donné parce que on sait aussi parfois naka la ñuy autorité politique yi di doxalee. Mhm. dañuy teg kenn ci benn direction général boo xam ne xëy na xaalis daf fay génn parfois ñu def ay ponction ñu def ay voilà xeetu lépp yooyu. waaw xam nga parfois état moom. loolu tam dégg nañ ne bokk na ci li. suuf ak ah, non non moom li mbirum audi yi gars yi doon agité am na yenn ministres yoo xam ne dañ foog nañ ñu ci kaso bi ci kaso bi lañ jëm mais c'était Daesh finalement qui ont été xam nga nit day maandu en fait quoi quand tu as des des des des de contrôle donc kilifa dafay maandu da ngay yónnee sa coli sa sa sa sa say de de contrôle. Mm. ñu ñu ñu ñu ñu saytu parce que donc audi du pour sanctionner. dafay de recommandation bu amee lu war a dëng nga jubanti bu amee nangam loolu loolu mooy rôle audit en ah, ah, ah, fait quoi mais sénégalais dañu dégg audit rek foog ne musiba la ñu jël seen nawle gor jeté ko en pâture yàq deram alors que la ñuy wax ak li am bokkul mais quand même dans les principes de bonne gouvernance et de transparence dafa baax quand même képp ku amee donc alalu askan bi moomoo ko doon woo ko mais ñuy saytu noo ko yore boo fi jógee également moom reddition des comptes naka nga ko yore woon bu fekkee ne am na luubal boo ci def mais nga répondre devant la justice moi je n'ai aucun problème par rapport à ça mais euh, l'État aussi bon j'attends donc le, le nouveau régime comment ils vont comment ils vont procéder parce que bu fekkee dañ la fal ci politique ba pare di séenu ci yow nga am ay résultats politiques mais mm. évidemment sa salaire rek taxul nga politique c'est la porte ouverte donc à tout gabegie à toute campagne yi ñëwee voilà voilà donc non non non c'est la porte ouverte ñii neew nañ dañu def donc appel à candidature moi j'étais contre déjà parce que qui gagne gouverne mhm. bu ñu defoon appel à candidature ñoom ci ñoom kenn du fal parce que ñi fi nekkoon ñoo leen gën seege mhm. xale yu jàng comme ñoom nekkoon ay DG nekkoon ay ministre ëpp leen profil bu ñu defoon appel à candidature ñoom du ñu fal mhm. mais qui gagne gouverne loolu mooy li nga xam ne mooy li gën ñu fal la exempté la de politique fal naa la liggéeyal bés mu a gisee nga takk ma dàq mais kooku def mu liggéey parce que fi ñu jàngee fa la nasaraan bi jàngee. Hmm. pourquoi ñu ngi développé en Europe ak un peu partout ñun ñu développé au Sénégal mais c'est parce que buñ la fale di séddu ci yow nga am résultat politique résultat politique fii Sénégal dafa am lu mu laaj di nga jalgati. Hmm. di nga jël ko warul jël di nga def ay faveur yoo xam ne bàyyi kële favoriser kii donc loolu mooy andi c'est la porte ouverte maintenant à tout à tout dérive daal je dis à la décharge des directeurs qui sont sollicités à la poste que langa nga mënoon def nga ko maintenant nag c'est un mauvais procès mbàjj jël mbàjj sàng sa bopp hmm. di joxoñ DG bi te yow xam nga ne yow am nga pas de responsabilité nga xam ne moo xew parce que loolu man mu ma ci dugg hmm. waa loolu di yëfu nit ku maandu voilà Khalil waaw bon juste euh, ci ci mu nga doon wax sànq nee na euh, lu jëm ci li nga xamante ni moom mooy euh, direction bi peut-être am na ci responsabilité yu nga xamante nii état bi am na ko am na ci responsabilité boo xamante ni hmm. également direction bi am na ko mais ñi nga xamante ñoom ñooy liggéeyee poste am nañ ci responsabilité parce que tey bu fekkente ne comme ni ko Fatou waxee léegi dafa am ñoo xamante ni dañu dañuy dañuy dañu dañu leb ci ci li nga xamante ni moom moo di moom moo di poste